ku nekk ci doomu askan wi teewe woon doxub ñaxtu bi nag amoon na lu ko fi andi muy góor di jigéen nëbbuñu benn yoon seen naqar ci tolluwaayu réew mi. tey dañu ñëw pour euh, fësal ah, suñu suñu métit euh, pour nous dégg ñu autorités dégg ñu parce que la femme euh, problème yi nga xam ne moom mooy xew ci forêt de Mbao y a un projet de déclassement ah, de 10 hectares ci forêt classée de Mbao donc nous trouvons que c'est injuste nous tax tey ñu teew fii dafa donc il est temps que nous affirmer wu suñu mécontentement Si Lo moo tax ma ñëw C'est Cissé nous nu ndax parce que mom dafa nek nit ko xamne lu ko way waxal nang ko waxal deug nitu deug la ba pare dafa bëgg réewam mom nak mom ak ya xam bay at keneen ki ñom c'est personnel saga ki la saga 11 ans bu la saga tay waru mom metti ñun lamu wax mom lañuy ñuy mom moom tax ma ñew fi ndax Lo bu dee deug rek ka neex yalla ah mom du askan lek alalu askan bi taxuko jokk ndax mbay mi ma nga ca ma ngay wax deug assemblée nationale mi ngi ciy wax dëgg kon dañoo war a encourager Cissé Lo looluy dëgg. du rek ñi le mag yi te woon nañu dox ñaxtu bi nga xam ne si nañ ko jàpp ni ab foiru ñaxtu. te nous qui avons travaillé le Sénégal bii nag ba léegi nag ñu gars ñëw di ko di ko yàq comme des renégats comme des pillards mais lii kenn kenn waru ko seetaan kenn

mbootaay bi ëmb liggéeykatu afrika Set teewe na doxub ñaxtu bi ngir fësal coono yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ci liggéey bii. imagine toi naka ngay amee arrière 15 mois de salaire ak sur un nombre de personnes boo xamante ne on est 20 euh, et quelques personnes 30 voire nga amee leen ba noppi nag naan da ngay annoncé di recruter ay nit actuellement mi ngi recruter ay nit. té mi ñu amel ñun xaalis wax ñu fay té boobu ba léegi nag kenn déggul ñu wax parce que on est responsable nak té dañu xam lan moy communication dañu ko jàng xam ko maîtriser ko donc on parle pas n'importe comment té on parle pas fi nga xamantene waruñ fa waxé depuis boobu ba léegi ça fait plus de 3 mois ñu ngi bàyyi négociation di daw ñu ngi bàyyi yoon di def liggéey mais boobu ba léegi amuñu gain ko cause sama waa ji tabaski mi ngi ñew dañu am ay jabar am ay doom am papa am yaay donc depuis bobu ba nak amuñu ben solution par rapport à ça te ci bir lool nak ñi ngi interpeller ki nga xamantene moy ndey mbill gi di umu wan umu wan moom moy borom Africa 7 tay li ni bu amé baxul sax ci image Africa 7 rawatina mom mi nga xamantene mom moy umu wan nam bu fekke ni sax ñi téwé doxub ñaxtu bi wuñu ni niñ ko yaakaré won ñi ko organiser ñom gis nañu ci résultat ci sen ay kaddu sax li waral ba askan bi gennul bokk na ci doxalinu nguur gi di bàyyi ba mujjanteel gi ngir autoriser leen ñu génn ñaxtu